aousubillah min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim ba tey mbokk yi nga xamante ne ñoom ñooy bàyyi xel Touba Vision moo xam ci réew mi la moo xam ci bitim réew ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp nga xamante ne yéen ñu koy topp diirub ñett fan yi ñu génn yëpp ñu nekkoon fii ci diwaanu Casamance ngir bisub xasida bu màgg bi nga xamante ne dongo yi nga xamante ne ñoo fi ne di yëngu ci xasida yi di yëngu ci lépp loo xamante ne ak boole la ak nation lay doon ci liggéey bi nga xamante ne sëriñ bi teg na ko seen loxo fii ci diwaanu Casamance waaye ba tey taxaw ak ay jëmm yoo xamante ni mën nañ ne ay ay ay ay étudiants lañ waaye ñu nekk ci diwaan bu am solo boo xamante ni dañ fee nekk ci daara ju am solo muy université bi nga xamante ni moo féete fii ci diwaanu Ziguinchor ñu doon ay jàmbaar lool ku ne ràññee leen ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñi ngi koy amal ci diwaanu Casamance mu doon liggéey boo xamante ni liggéey bu ñëpp teg seen bët la ñu fas yéene seq ak ñoom ay waxtaan yoo xamante ni rek amaan day jëm ci seen i activité ci biir daara ju mag ji nga xamante ni amaana ñi ngi fi te it mu doon tawféex ak it jaayante lool ndax mën nañ ne dañoo bàyyi seen i kër ñëw fi ngir sàkk xam-xam nekk ci dimension bu am solo boo xamante ni dimension bu boo xamante ni doonu luñ mën a leeral lépp waaye ñëw fas yéene seq ak ñoom ay laaj yoo xamante rek du jëm fenn fudul ñoom nekk nga xamante ni nekk nañ ko ci daara ju mag ji nga xamante ni mooy daara ju mag joo xamante ni dafa féete fii ci diwaan Ziguinchor muy université ndax université suñ ko waxee rek xel yi day tijjeeku xam nañ ne naam daara ju mag lay joon joo xamante ni maanaam mën nañ ne maanaam ay jéego ngay def door fee tabbi mën nañ ne maanaam ku fi nekk rek sàkku xam-xam moom moo la tax a jóg waaye ba tey ñoom ñu am beneen gis-gis boo xamante ni ci biir daara ji amaana dañ koo am waaye fi ñu leen di laajee rek muy nekk nga xamante ni nekk nañ ko ci biir daara ji ñu doon ay ay ay ay taalibe doon ay murit yoo xamante ne dañoo ne ci yoon bi di ci góorgóorlu tant que ñoom nekk gi nekk ci daara ji naka lañu gisee jaante gi nga xamante ni am nañ ko ci dëkk bi ñëw dëgg dëgmal lépp bàyyi lépp nekk fi ngir jëmi sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa kese tax di fi dundal yoon wi nga xamante ne mooy yoonu Seexuna Ahmadul Xadim foofu la ñu fas yéene seq ñoom waxtaan woo xamante ni bëgg nañ képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel Touba Vision rek boo ko teewloo mu doon njariñ ci ñoom ndax day mel ni taw féex la ci amaana nekk nga xamante ne moom lañ ñëw nekk ci daara ji wane giñ fi wane Seexul Xaddim lu wér la waaye ba tey luñ ko gën a wane rek doyul ndax sëñ Tuubaa moo wane boppam kon euh, sëñ bi fi ñu lay laaje foofu la nekk ngeen xam yéen a ko nekk ci biir daara ji di fi liggéey liggéey bu am solo daara bi nga xamante ni mooy daara Matlabul Fawzeyni non seulement gis nañ bis yi nga xamante ni yéen a ko fiy amal muy activité yu am solo yoo xamante ni kuréelu Matlabul Fawzeyni ñu ngi ko fi amal yan activité dëgg dëgg dëgg dëgg tey ngeen mën a teg ci suñu loxo tey ngir mbokk yi nga xamante ni ñoo leen di bàyyi xel salaatu wassalaamu aleyka yaa sayyidina yaa waliyallah yaa norma saabi xadratillah ñu ngi sant ku tedd bu baax a baax moom mi ñu def ay taalibe ñu ngi koy sant bu baax a baax euh, ñoo ngi yëkkati suñu kàddu suñu digalu suñu jëwriñ sëñ Massamba moo tax moo la féetee nday joor moom mooy suñu jëwriñ nekk jëwriñu Matlaboul Fawzeyni université Cheikh Anta Diop de Ziguinchor daanaka lépp ñu wax rek si kàddam lañu waxee waxee euh, li ñu laaj dañ ci sawar a tontu lool ndax. ay ndaw yoo xamante ne nii dañoo nekk université université nekk barab boo xamante ne nii lañ ko xamee woon mooy ku jor maanaam jikko nasaraan ñu tabbi fa Serigne Touba kattanal ñu dimbalu ñu si ndimbalam def ñu ay taalibeem ñu ne di ko liggéeyal sant la sant la goo xamante ne nii amul tàmbaliwaay amul yemuwaay suñ diggante Serigne Touba ndax kat Serigne Fall dafa ne jàng goo xamante ànd ak yar du jëriñ nit ki jàpp nañ ne kat daara ji nekk nii. mooy def suñu yar gi nga xamante ne moom la Serigne Touba bëgg suñu ndax am kat bu ñu nekkee si daara ji ñoo ngi jàng nasaraan waaye maanaam daara ji ñu nekk mooy def suñu yar ba bu ñu génnee mën a jëriñ réew mi jëriñ li nga xamante ne mooy liggéey Serigne Touba gi daara man la fawsee ni sëñ baar moo joxoon tur te leen lu dul yitteem lu dul maanaam ñi nga xamante ne nekk nañ ci biir université képp ku dugg nga mën a wéyal sa pas-pas nga mën a yokk sa gëm Serigne Touba nga mën a yokk sa sa sa maanaam sa Pastef sa diggante Serigne Touba comme ni ko mboolem murit di defee suñu yitte nag nekkul leen lu dul nekk ay taalibe Serigne Touba nekk ay soldat Serigne Touba si saa ak si baatin fu ñu mën a nekk ay nekk ay soldat Serigne Touba si loolu daara ji dañuy taxawal chaque guddi ajuma jeudi bu nekk dañuy taxawal daayira ni ko tàmbalee jàngum xasida ak kuréel buñ noppee def Samp Fall buñ noppee am waxtaan goo xamante dina ñëw si diine lii jëm si njàngaleb Serigne Touba lii jëm si li nga xamante ne nii mooy lëpp loo xamante ne dina dina dox suñu diggante ak diine daay tamit day taxawal ay activité lu mel ni Kazu Rajab ku ne xam na ne Ziguinchor dafa soy Touba kenn ku ne xam ne suñu ne Kazu Rajab si murid bu nekk mu màggal ko ngir sëñ Fallou ni mu toll si yoonu murid moo tax ñu koy taxawal foofu defar ay bernde di jox étudiants yëpp ñu xewlu li nga xamante ne mooy màggalu Poroxaan tamit dañ ko fay taxawal nga ngir soxna jaara maanaam liggéey gi mu liggéeyee Seex Xaddim kon ñun tamit dañ ko war a liggéeyal ngir ñu mën a am ci làq ngërëmal sëñ Tuubaa moo tax ñu koy taxawal foofu di si woo waa Ziguinchor yëpp waaye tamit ñu am bés boo xamante ne nii mooy suñu bésu cant ñu koy def chaque année di si woo mboolem waa Ziguinchor ñu ñëw jàpp si sëñ sëñ Fallou Diop mi nga xamante ne moo fi teewal xalif bi da siy teew ñu jàng fa alxuraan def fa ay bernde jàng fa xase sëñ Tuubaa ñaan suñu borom lépp loo xam ne ñoo ko université boobu noonu mu barkeel ko te mu nekk loo xam ne day jëriñ réew mi jëriñ munu ji loolu rek moo tax a daara ji waaw loolu moo tax ñu ngi nag ñu ngi sàkku si sëñ bi maanaam mboolem yéene guñ am si liggéeyal ko di ko ànd ak suñu jëwriñ gi ñu ma si Masamba yàlla nañu sëñ bi katt kattanal si saay ak si baatin gën ñoo dooleel ba mboolem lu ñu bëgg liggéey sëñ bi mën ko liggéeyal ndax kat am nañ yéene de waaye kattan gi sëñ bi la nekk kon ñoo ñoo gën a sàkku ci moom mu gën ñoo kattanal gën ñoo làkk fa làkk eggul gën ñoo maanaam rafetal suñu pas-pas rafetal suñu taalibe ba ñu mën a maanaam liggéeyal ko liggéey goo xamante ne nii euh, dina fees xolam loolu daal lañ ci bëggoon wax euh, ba tey laaj bi may dolli xam naa loolu moom sëñ sàmba laa koy laaj en tant que maanaam nekk ngeen nekk ci daara ji ndax am seen xel dem ba taxawal ay séminaire yoo xamante ni wala seen xel nekk ci bind livre yoo xamante ni dañu ni gën a feeñal liggéeyub Serigne Touba ndax comme niñ ko waxee Serigne bi liggéeyam moom moo ko feeñal ba noppi waaye comme que ay dong ngeen féete ci daara ju mag joo xamante ni daara yi gën a ràññeeku ci Sénégal ci la bokk ñu xam leen ci beneen beneen beneen environnement ngeen ciy dund tey est-ce que tey seen xel mi ngi ci loolu taxawal lu demee ne ay séminaire invité professeurs yi wane njàngalem Serigne Touba dëgg-dëgg waaw jërëjëf sëñ Mourou ñu ngi bu baax a baax di sant di rafetluwaat liggéey bi tamit di santaat bu baax a baax ñi nga xam ne mooy waa Touba Vision ndax xëy na mën nañu wax ne ñaari at a ngi nii ñu ngi teewee bisu xasida bi nga xam ne fi lañ nekk te xasida yooyu lañ nekk kon ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di leen ñaanal suñu borom télé yi ngeen ci leen fa ndax xëy bi ñuy def yëpp dañ cee jëmale liggéeyal sëñ Touba rek waaye wutuñ ci xaalis wutuñ ci dara ngërëmal sëñ bi rek lañ ciy sàkku kon loolu ñu sant bu baax a baax neneen la comme ni nga ko waxee rek daanaka sëñ maalik jot naa tënk lu bëree bari ñu maanaam ñun ay ndongo lañ waaye xëy na suñu jëmmi suñu soñee baylaat dafa am beneen kii bu nekk suñu biir mii maanaam ay étudiants lañ te boo waxee étudiant rek maanaam mooy ki nga xam ne mën nañu wax nii jamono yi ñoo yor réew mi ñoo yor àdduna ndax lépp li nga xam ne rek ñu ngi koy wéyal ñoom ñoo koy taxawal sëriñ bi nag moom daanaka xëy na bi mu fi dem bàyyi na fi ay téere yoo xam ne ci euh, arab la ko bind muy alxuraan ak yooyu yëpp xasida yi waaye dafa yell nag maanaam ñi nga xam ne xëñ na dégguñ langue boobu tey ñu mën a jariñu ci téere yooyu ndax Sëñ Tuubaa kat ndimbal la goo xam ne ndimbal àdduna la yemul Sénégal kese ci loolu nag étudiants yi nga xam ne ñoom lañ yaakaar ñoom ñoo war a nekk ñi nga xam ne ñoo war a taxawal loolu muy livre donte sax maanaam sëñ bas Abdou Khadir ci ndigalu Cheikh Sidil Al Muxtaar Mbàkke am na daayira bi nga xam ne université bi jokk na ci muy daayira Mouwahiboul Akyaas te sëñ Abba Gaye jiite ko Abba mbay maa ngi tudd te jiite ko kon loolu maanaam ñoom tam ñu ngi ci soññu baax a baax muy téere yooyu yëpp am na ay vision la yoo xam ne mi ni ci daara ji séminaire yi incha allah daara ji am na ay vision yu kawe lu mel ni ay congrès yooyu yëpp am nañ yéene fii ñaari at ñetti at ñu taxawal ko fii ci biir Ziguinchor ndax université bi xëy na mën nañu wax ni yàggul boo ko comparé ak université Dakar te maanaam fi mu ne nii dégguñ benn université bu taxawal congrès Mawahibou Akyasi daa regroupé université yëpp mais ñun am nañ yéene nekk université bu koy njëkk a def kon loolu ñi ngi ñaan suñu borom kàttanal ñu bañ maanaam wéyal liggéey boobu daal waaw yaakaar ngi jégalu bu baax waaw ba tey laka ngeen di wax seen mbokk étudiants yi nga xamante ni dañuy bàyyi xel Touba Vision mm. te nekk feneen fudul ci Sénégal tey topp seen seen bi nga xam mooy Touba Vision tey boo leen doon wax tey ñu jàppaat liggéey bi tey ban yoon tey nga leen di teg waaw yoon wi de xanaa mooy maanaam li nga xam ne noonu la ko sëriñ bi digalee rek ndax ñun moom ay murid lañ te ci ndigal rek la ñuy wéy te liñ fas yéene doora mooy ñàngaleem sëriñ Tuubaa kon maanaam yaakaar naa buñ tënkoo ci li nga xam ne mooy ñàngaleem sëriñ bi lépp loo xam ne mbiri àdduna la rek ñu teg ko ci côté comme ni nga xam ne ni ñuy gisee étudiants yi ñu mel noonu tey da ngay dugg ci université bi da ngay seen ñi ñi ñi ngi sol seen i baylaat yor seeni i jukki xasida waaye ci ginnaaw lan ngay gis ñu yore seen saak ak seeni i kaye jëm ci bërëb bu sell bi te li may seetee mooy fii ñu ci bari mu yi ñooy majoré ci euh, université bi loolu misaal la ci maanaam liggéey suñ tubaab mi ngi gën a yokk kon maanaam suñ doxee ci noonu rek yaakaar naa dinañ dem ba jamono ji ñay jiite réew mi sax ay baylaat la ñuy toog ba bu ñu baylaat la ñuy sol ba bu ñuy dem ay États-Unis fu ne président yi di leen accueillir ñuy sol seen baylaat ñu xam ne loolu lépp ci liggéey suñ tubaab la te lu mën a nekk la te am nañ ci yaakaar bu baax loolu daal liggéey bi soxla incha allah ko Touba Vision nag moom comme liñ ci waxoon rek ñun daanaka wax dëgg yàlla deux ans la ñu xam waaye daaw xam nañ ci lu bëree bëri bëri boo xam ne euh, kii ne waaye gis nañ ci maanaam liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy wéyal euh, ku dugg YouTube bëgg a télécharger da nga man keroog dama télécharger pare bi ma télécharger doo nekk Touba Vision ñoo dugal vidéo bu ma xam ne kon liggéey maanaam àgg na foo xam ne dëgg nga ñaan suñu borom rek mu gën a li nga xam ne télé yi ngay dégg yu bëree bëri yi nga xam ne yaa ngi leen dégg ba ñu kawee Touba Vision mel noonu dëgg fa yàlla jërëjëf Serigne Massamba Dieng mu doonoon jëwriñu daara Matlabul Fawzeyni bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci université bi nga xamante ñoom ñoo nekk fii ci Ziguinchor mbokk yi noonu lañ koy wéyee ak yéen fas yéene wan leen lépp loo xamante ni am na ci bis xasida bi nga xamante ni mi ngi am fii ci diwaanu Ziguinchor fii ci jumaay Murid kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh